Efes Efes saar wàll ci linjiil di bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko waa efes man pool ndawul kirist yeesu ci coobareeg yàlla maa leen di bind yéen gaay yàlla yu sell yi te gëm kirist yeesu ci dëkku efes na leen yàlla sunu baay ak boroom bi yeesu kirist may yiw ak jàmm cant ñeel na yàlla bàyyi sunu borom Yeesu kirist mi nu sotti ci sunu bokk ci kirist lépp luy barkeel ci baatin te nekk ca barab yu kawe ya ndaxte ba àddina sosoogul tànn nanu ci kirist ngir nu mën a teew fa kanamam sell te ñàkk sikk ci kaw mbëggeelam séddoo nanu lu jiitu def nu ay doomam jaarale ko ci yéesu kirist ndaxte looloo doon yéene ju rafet ji mu tëral ci coobareem na ndamam jolli ndax yiw wu réy wi munu sotti ci soppeem bi moom jot nañu ak deretam ji ñu tuur maanaam baal nu sunuy bàkkaar ci kaw yiw wu yaatu wi mënu baawaanal te yàlla sol nañu xel mu mat ak dégg ci feeñal nu mbooti coobareem dëppook yéeneem ju rafet ji mu jaarale ci kirist mu tëral ne bu jamono yi weyee ba lépp mat dina dajale lépp ci kilifteefu kirist muy ci kaw muy ci suuf te am nanu cër ci moom bi nuy yàlla sedd lu jiitu ci dogalam moom mi doxal lépp ci ni mu koy àttee ci coobareem noonu nuy jollil ndamam nu ñu jëkk a wekk suñu yaakaar ci kirist te yéen itam bi ngeen déggee kàddu dégg gi di xabaar bu baax bi leen tegtal yoonu mucc te ngeen gëm ko yàlla tàmpe na leen ni ñoñam ak xel mu selli mi mu dige woon te xel mi mooy dawal gi nu yàlla jox ci cër bi mu nu dencal ba kere muy goreel ñi mu jotal boppam te ñépp jollil ndamam bi ma déggee nag seen ngëm ci borom bi yeesu ak seen mbëggeel ci gaay yàlla yu selli yépp duma ma sant yàlla di leen boole ci samay ñaan te li may ñaan yàllaay sunu boroom yéesu Kirist di baay bi yelloo ndam mooy lii mu sol leen xel mu xóot te xamal leen boppam ci leeral seeni xol noonu dingeen xam yaakaaru ëllëg ji leen yàlla wooye di ndam lu xel mënta daj li nekk ci cër bi mu dencal gaayam yu sell yi ngeen xamit ni kàttanam màgge ba jéggi dayo jëm ci nun ñi gëm dëppook dooleem ju ràññeeku ji mu jëfe ci kirist ci li mu ko dekkal dëwal ko ci ndejooram ca barab yu kawe ya mu tiim lu sori malaaka yépp muy kilifa boroom sañsañ sañ boroom doole mbaa buur te gën a màgg wépp tur wu ñu mën a tudd muy tey muy ëllëg yàlla suufeel na lépp fi kanamam def ko kilifaak lépp ci mbooloom ñi gëm mi jëmam di matu kirist mi fees mbindeef mu ne ci fànn gu ne Efes sar ñaar te yéen itam yàlla dekkal na leen yéen ñi doon dee fa kanamam ci seeni mooy ak seeni bàkkaar ci biir yooyu ngeen doon dund démb topp doxalinu àddina tey déggal kilifaak boroom sañ-sañ yi ci jaww ji di xel mu bon miy jëf ci kuréelu ñi déggadil yàlla te nu nit booba àndoon nanu ak ñoom ca seen dund ga di topp suñu bakkan ci wut bànneexi yaram ak coobarey xel noonu ci suñu bindu nit yeyoo nañu meru yàlla ni ña ca des waaye yàlla mi bari yërmande ci kaw mbëggeel gu réy gi mu am ci nun dundalaat nanu ak kirist fekk ndee lanu woon fa kanamam ci suñuy bàkkaar ci kaw yiwu yàlla ngeen mucce te dekkal nanu ak kirist yéesu dóol nu ak moom ca barab yu kawe ya noonu ba fu jamono yem dina laññal fi suñu kanam yiwam wu réy wi xel mënta takk jaar ci baaxaay gi mënu won ci kirist yéesu ndaxte ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayu yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu ndaxte jëfi yàlla lanu moonu bind ci kirist yeesu ngir ñuy ci jëf yu rafet yi mënu fàggaloon ca njaalbeen ga kon nag yéen ñi dul yawut cib juddu yéen ñi xaraful te ñi xaraf ci seen yaram ci loxool nit ñoo leen teg ay yéefar fàttaliku leen lii booba amuleen woon benn cër ci kirist mbaa benn baat ci kuréelu bànni israyil bokkuleen woon ci kóllëre gi yàlla fas ak ñoom te ëmb dige ya amuleen woon jenn yaakaar mbaa benn xam-xamu yàlla ci àddina waaye léegi ci seen bokk ci kirist yéesu yéen ñi sori woon jege ngeen ndax deretu kirist ji nu tuur ndaxte mooy sunu jàmm moom mi jël yawut ak ki dul yawut def nu benn ñag bi doxoon suñu diggante te sosoon suñu dëngoo moo ko màbb ci li mu joxe yaramam far noonu yoonu musaa muy ndigal ya ak dogal ya noonu lañu jële yawut ak ki dul yawut def nu benn ci moom ba nu jàmmoo te ñun ñaar ñi def benn jëmm jubale nanu ak yàlla ci dee gi mu dee ca bant ba ñu ko daajoon dinde noonu suñu tongoonte bi mu ko defee mu ñëw yégal suñu xabaaru jàmm fa kanam yàlla yéen ñu sori woon ak ñun ñi jige ndaxte ñun ñaar ñépp am nañu bunt ci yàlla baay bi jaar ci kirist ci ndimbalu menn xel mu sell mi noonu dootu leen ay doxandee mbaa ay gan waaye am ngeen baat ci kuréelu gaay yàlla yu sell yi te waa këram ngeen yéen a ngir sukkandikoo ci fondement bi ndawi kirist yi ak yonent yi tabax te kirist yeesu ci boppam di doju dalil wa ci moom la doj yépp ràbbuloo ba tabax bi jóg di màggalukaay bu sell ngir borom bi teg ci seen bokk ci kirist yàlla boole na leen tabax yéen itam ba ngeen nekk dëkkukaayam jaar ci xel mu sell mi Efes saar ñett kon nag maa ngi leen di ñaanal man pool mi ñu tëj kaso ci turu kirist ndax sas wi may bey ci yéen xeet yi dul yewuut wóor na ma ni dégg ngeen yenub xamle yiwu yàlla bi mu ma jagleel jëm ci yéen yàlla feeñu na ma xamal ma mbooti mbir mi mu tëral ni ma leen ko bind ci kàddu yu néew bu ngeen jàngee loolu dingeen mën a xam bu wér dégg gi ma am ci mbooti mbiri kirist te jamono yi weesu loolu kumpala woon ci doomu aadama waaye léegi yàlla feeñalal na ko ay ndawam ak ay yonentam yu sell yi jaarale ko ci xel mu sell mi mbir mi nii la tëdde léegi xeet yi dul yawut dañoo bokk ci cër ak yawut yi bokk ak ñoom jenn jëmm bokk wàll ci xéewal yi yàlla dige ci kirist yéesu te xabaar bu baax bi xamle ko xamle xabaar bu baax boobu nag yàlla fal na ma ci jawriñ ci kaw yiwam te di ma dooleel ci kàttanam may na ma man mi gën a tuuti ci gaay yàlla yu selli yi may xabaar xeeti àddina barkeel yu xel dajul yi ci kirist te it may sulli melokaanu mbir mu xóot mi yàlla tëral te doon kumpa njaal been ga ba tey ci moom mi sos lépp waaye léegi ne na fànn ngir kilifa yi ak boroom sañ-sañ ca barab yu kawe ya mën a xam ni xelum yàlla xóote jaar ci li ñu gis ci mbooloo ñi gëm kirist mooy dogal bi sax dàkk te yàlla tëral ko ci kirist yéesu sunu boroom ci turam am nañu lute fa kanam yàlla ak bunt bu yaatu ci moom ci kaw ngëm maa ngi leen di ñaan nag ngeen bañ a yoqi ndax coono yi may jële ci bey sama sas ci yéen xam ni coono yooyu ñoo leen di jural ndam moo tax maa ngi sukk jublu ci yàlla baay bi cosaanul njaboot gépp muy ci kaw muy ci suuf ma di ko ñaan mu may leen ci kaw ndamam lu amul kem xel mu selli mi fedd li seen baatin ak kàttan gu màgg ba kirist dëkk ci seeni xol ci kaw ngëm te ngeen sax noonu te samp ci mbëggeelu yàlla ba jegoo yéen ak gaay yàlla yu selli yépp guddaay ba yaatuwaay ba kawe ga ak xóotaay ba te xam mbëggeelu kirist gi raw mépp xel noonu dingeen fees dell ak matuk yàlla léegi nag na ndam li féete ak yàlla mi mën a yeggale lépp luy ñaan mbaa yéene ba weesu ko fuuf dëppoo kàttan gi jëf ci nun moo yelloo ndamul mbooloom ñi gëm jamonooy jamono ba faw jaar ci kirist yéesu amiin Efes saar man mi ñu tëj kaso ngir borom bi nag maa ngi leen di dénk ngeen dund dundin wu yelloog wooteeb yàlla ngeen woyof toy te lewet di muñalante tey baalante ci mbëggeel te dem ba fu seen kàttan yem ngeen likkoo ci jàmm bay sàmm booloo gi leen xelum yàlla may jënn jëmm moo am menn xel ak jenn yaakaaru ëllëg ju wooteeb yàlla ëmb benn boroomi am genn ngëm ak benn seedeeb ngëm ci li ñu leen sóob ci ndox te jenn yàlla am di bàyyi ñépp mu tiim ñépp fees ñépp te dëkk ci ñépp waaye ku nekk ci nun ak mayam ni nu ko kirist séddalee looloo tax mbind mi ne yéeg na ba ca fa gën a kawe yóbbaale mbooloom noon mu bari mi mu noot te séddale nit ñi ay may sunu waxee ne yéeg na lii moo ci génn daa jëkk a wàcc ba ca barab ya gën a suufe ki wàccoon moo yéegaat ba tiim asamaan yépp ngir fees lépp moo may ñii di ay ndawam ñii ay yonent ñii ay teskati xabaar bu baax bi ak ñeneen ñuy sàmm mbooloom ñi gëm te di ko jàngal maye na leen ngir ñu waajal gaay yàlla yu sell yi ñu mën a bey seeni sas ci taxawal mbooloom kirist di jëmmam noonu nu mànkoo ci sunu ngëm ak ci xam doomu yàlla ji ba kere nuy egg ci nekk nit ku sotti te taxaw taxawaay bu dëppook matu kirist noonu dootunu ay gune yu njàngaleem nit ku ñëw di fàbbi ci seeni làqarci ak seeni pexe nu mel ni ay gaal yu duus yi ak ngelaw li di baaje waaye dinañu wax dëgg ëmb ko ci mbëggeel bay màgg ci fànn gu ne ci suñu bokk ci kirist mooy bopp te jëmm jépp ci moom lay dunde di jëmm ju ràbboo te déggoo ci bépp tenqoo te cër bu nekk di def waru garam noonu jëmm ji di yokk ak a màgg ci biir mbëggeel maa ngi leen di wax lii nag te di ko dëggal ci kanamu borom bi bu leen dundati ni xeeti àddina yi ci seen xalaati nen ak seen xel mu lëndëm dañoo génn ci dundu yàlla ndax umpale gi ñu am ci moom ak li ñu ko tëjal seen xol seen xol dafa dër kiis ba ñu bàyyi li ko ciy topp seen nafsu di soobu ci bépp sobe te xer ci waaye du dundin woowu ngeen jàng ci kirist ndax yaakaar naa ni dégg ngeen kirist te jàng ngeen ci moom ba xam dëgg gi yéesu ëmb maanaam ngeen yulli seen jikko ju bon jigéen judduwaale te daan fes ci seen jëf te muy gën a yées moom ak i bëgg-bëggam yuy naxe kese te ngeen yeeslu ci seen biir xel te solo jikko ju bees ji yàlla sàkk ci njub ak sell yu dëggu kon nag bàyyi leen di fenn tey wax dëgg kenn ku nekk ci moroomam ndax ku nekk sa genn wàllu moroom nga ku mer bu mu jàll aw kaañ bu jant bi sowaale seen mer ba ngeen may seytaane bunt ku daan sàcc na ko dëddu te jublu ci liggéey lu baax ci ay loxoom ngir mën a dimbali ñi néew doole bu genn kàddu gu ñaaw génn ci seen gémmiñ waaye su wax egsee na ngeen wax lu rafet ba faj soxlaay seeni moroom te teg ñi leen di déglu ci yoonu yiw bu leen yëbb xelu yàlla mu sell mi leen tàppe ngir bésu goreel ba dëddu leen lépp luy wex mbaa tàng bopp luy mer mbaa coow lépp luy xeste mbaa coxor te ngeen baax ci seen diggante di laayante biir tey baalante ni leen yàlla baale ci turu kirist Efes saar juróom. yéen nag ñiy gune yàlla yi mu bëgg ci xolam roy ko ci loolu ngeen wéer seen dund ci mbëggeel mel ni kirist mi nu bëgg ba joxe bakkanam ngir nun di sarax suñu jébbal yàlla te neex ko ni xeetu laj ko leen waaye naka njaaloo ak bépp sobe mbaa bëgge jëlale naa jëf ji sax waaye bu ko làmmiñ tudd ni mu jekke ci gaay yàlla yu sell yi daw it yu jekka dee ni wax ju ñaaw mbaa waxi caaxaan ak kaf yu bon te ngeen sax ci sant yàlla na leen wóor ne kenn ku jukke woo ndoxaan sobe mbaa bëgge maanaam bokkaale yàlla kooku du am cër ci nguuru kirist ak yàlla bu leen kenn nax ci ay waxi neen ndaxte jëf yoo yooy tax meru yàlla di wàcc ci kuréelu ñi ko déggadil kon nag bu leen séq ak ñoom dara lëndëm ngeen woon waaye léegi leer ngeen ndax seen bokk ci borom bi dunu leen nag ni ay guney leer leer mbaax lay meññ njub ak dëgg dëggal leen ci seeni jëf li neex borom bi te daw lépp luy jëfi lëndëm yu amul njariñ bay weer sax ki koy def ndaxte waxtaane sax li ñuy def ci nëbbu lu ruslu la waaye leer lu mu ëmb fesal ko ndaxte lu jaxasoo ak leer di leer looloo tax ñu ne yeewul yow miy nelaw te jóge ci biir néew yi kon kirist dina ne ràññ ci yow ni leeru jant buy fenk waxuma ni ñu amul xel waaye ni ñu am xel tey jariñoo jot gi ndaxte ñu ngi ci jamono ju bon bu leen ñàkk bopp nag waaye xam leen li coobareeg borom bi bu leen màndi it ci sàngara lii ndey ñaawteef waaye fees leen ak xel mu sell mi di waxante ci seen biir ci ay taalifi sabuur ci ay woy ak ay cant yu tukkee ci xelum yàlla di woy ak kañ borom bi ci seen xol gërëm leen yàlla baay bi ci tur yéesu Kirist borom bi fu ngeen mën a tollu ci lu mu mën a doon teg ca nangul sa moroom ci biir wegeelu Kirist naka yéen jigéen ñi na ngeen nangul seen jëkkër ni su doon borom bi ndaxte góor mooy kilifaak jabaram ni Kirist nekk kilifaak mbooloom ñi gëm muy jëmmam ji mu sàmm ni mbooloo mi nag jiitale kirist noonu la jigéen ji war a jiitale jëkkëram ci lépp yéen nag góor ñi na ku nekk bëgg jabaram ni kirist bëgge mbooloo mi ba joxe bakkanam ndax moom ngir sellal ko ak kàddoom ba mu laab ni ku sangu set noonu dina ko jël mu mel ni seet bu ñu waajal di mbooloo mu soloo ndam te gàkkul rasul taqul leneen waaye mu sell te amul sikk na góor bëgg jabaram ni mu bëgge boppam bëgg sa jabar bëgg sa bopp la ndaxte kenn musula bañ sa yaram waaye danga koy dundal di ko fonk noonu it la kirist fonke mbooloo mi ndaxte noo di cëri jëmmam mbind mi nee na moo tax góor dina beru ndeyam ak baayam di taq ci jabaram ñoom ñaar doon benn loolu ëmb na mbóot mu xóot man maa ngi wax ci lu jëm ci kirist ak mbooloo mi waaye li teew na góor gu nekk bëgg jabaram ni mu bëgge boppam te jigéen ji wekk jëkkëram efes saa juróom benn xale yi na ngeen déggal seen waajur ci li ngeen bokk ci borom bi ndaxte looloo rafet teral sa ndey ak sa baay mooy ndigal li jëkk ëmb dige maanaa ngir nga am gudd fan gu ànd ak jàmm yenn baay it bu leen bunduxatal xale yi waaye ngeen yar leen di leen yemale ak a yee ci borom bi yéen jaam yi na ngeen déggal seeni sang àddina boole ci ragal ak wegeel di ko def ak xol bu laab ni su doon ngir kirist buleen ko def rekk ci ngistal ngir sàkku ngërëmu nit waaye ni ay jaami kirist di jëfe coobareeg yàlla ak seen xol bépp bey leen seen sas nag ak xol bu tàlli ni su doon ngir borom bi te du nit xam ni ku def lu baax borom bi delloo la ko muy jaam muy gor yéenit sang yi jëfe leen noonu seen diggante ak seeni jaam te dëddu gépp raglu xam ni yéen bokk benn boroom ci asamaan te ñépp a yem fi moom léegi nag doolewuleen ci boroom bi te soloo kàttanam gu màgg gi gànnaayoo leen yére xare yàlla yépp ngir mën a jànkonte ak pexey seytaane ndaxte ndëndu xare jib na waxuma suñu diggante ak nit ñi waaye ak kilifa yi nëxal àddina si ñuy kilifa yi ak ay boroom sañ-sañ di gaayi seytaane yi ci barab yu kawe yi kon nag gànnaayoo leen yére xare yàlla yépp ba mëna a jànkoonte jamono ju xeex bi taree noot lépp te taxaw temm taxaw kon temm gañoo dëgg te sangoo njub muy seen kiiraayu dënn solo leen jàmm ji xabaar bu baax bi joxe ni ay dàll ci seeni tànk ba jekk ci lépp def leen it ngëm muy seen pakk ba mën a fel jum yi leen seytaane di fit def leen mucc muy seen mbaxanaam xare ak kàddu yàlla muy jaasi ji leen xel mu selli mi tëggal dee leen ñaan ci xeeti ñaan yépp ci kàttanu xel mu selli mi te sax ci ak farlu gu mat sëkk di ñaanal gaay yàlla yu sell yi yépp te buleen ma ci fàtte ngir waxtu wu mu ubbee sama gémmiñ ma am lu ma wax ba mën a xamle ak fit wu dëgër mbooti xabaar bu baax bi ndaw laa ci lu ñu jéng na ma yàlla may fit wu ma waxe ni mu ma waree yónne naa leen tisik sama mbokk mi ma sopp te muy jawriñ ju takku ci liggéeyu borom bi ngir mu xamal leen lépp lu aju ci man ak li may def maa leen ko yónneel sama bopp ngir ngeen xam li nu nekke te mu defal seeni xol yéen mbokk yi ne leen yàlla baay bi ak Yeesu Kirist borom bi may jàmm ak mbëggeel gu ànd ak ngëm ne wu yàlla ànd ak ñépp ñi bëgg borom bi Yeesu Kirist ak mbëggeel gu sax